waaw lan joxe ko wax ko loo xam ci kii mu ne kii daal li wala kii wax laa ci xam nee na kat déeg déeg jàng du tee nga góob sa tool mu ko wax nga dëgg déegu jàng day du tee góob mu ne kon nag nan ko def ne jàng boobu rek nan ko fi jël ndax lu yàgg yàgg xam naa ne daan da nga am jaloor yi yu mu am ci àddina waaye kenn mënu koo daan te ku mu daan it dootoo jóg ba faaw itu du mbir mi yaakaar naa ne sax tey waxtaan wi buñ ko bëggee bëgg a jant baa ngi bëgg a sopp kon ñu dem ci yoonu géej gi bi nga xamee ne kon sëñ bi waa nguur dina gi mere nañ ko doomu soxna yi am nañ xalaat boobu ci moom ngurum nasaraan gi rek te mu ngay ñëw ñoom ndax xam nga ne ceddo yi bu ñu naree daal di wuti wàll te kële nëpp doole yi gis leen bi mu jógee Touba ndax taalibe yu bari am seeni soxna seeni bokki soxna ak seeni ñëw ñi mu doon turbiyee bëgg a jaxasoo ñu ci adduna yi mu jóge fa loola taxam mu dem Touba jóge Salaam loola mu jóge Salaam demaat yi Touba point stratégique la boo xam ne te maana bindanteeg doomu daa jooju sahermatique xalaat ne point la boo xam ne daf koo tànn te mbir bari mën na fay xew te kenn du ko yëg te day fexe jaar buñ seetee rapport yu bare bare bari yu xam ne administrateur yi fi newoon ci jamono yooyu ko rapport ak chef yi nga xam ne kenn daf leen a faaleetul ndax topp yoonu murit bi gouverneur ak i commandant ñooñu ñëpp seen rapport ak seen tractation dafa dikk xalaat di ko xalaatal lu nekk di yebal ay agent secret ay ndaw yooyu yëpp ay détails yoo xam ne dana gudd ba mu ëpp jamono bu ko maye dem na ba àgg ci conseil privé bi war a daje ca ndar daje daje ba war koo teewal war koo laaj ay laaj war a jëgdu tontam te fekk na ñu lal la ci ba noppi bu fekk mbàkk baari kay si ko jëli woon fekk nag mu jóge fa ca fajar bisu gaaw la woon moo di samedi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ñu wax safara moo tegu ci tam xarit diggi di atum jay sa sin gànnaay gi am junni ak ak ñett samedi ji lañ koy jël si sëñ bi way xasbunallahu ni mooy wakiil xasida gi mu tënk xasbunallahu ni mooy wakiil yu bari aju ci yoo xam ne daan ko waxtaane ci biirum tasawuf buñ ca demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñi ko ba ne ko inchi laa tax sa darar demal bul ragal yan jenn lor bul ragal ay mu daal ne wa jaala al muxtaara sallallahu alayhi wa bi nga xam ñu ngi dox ba waxtu takkusaan mu àgg jeewal li ñu njëkk a nemmiku takkusaan jot ndox li sëñ bi daan def ndox ndox mu mu jàpp dara nekku ci dara nekku ci ci ndox ndax diggante foofu dafa ñàkkoon ndox ñu dajante benn lakkat boo xam ne lu ngi yenu mbuusum ndox déggul wala mënuñoo waxtaan waxante moom ñu liyaar ko nga jox ko ndaba sëñ bi mu sotti ba mu ndox takk ko daal dem kenn ci ñoom xamuñu ko comme ñu tudd mu jëm mu jàpp julli takkusaan waa bi ñoom ñu nga jógee woon Louga ak ñi ñu àndal sonn nañu loolu moo tax ñu fanaan jeewal bu ñu fanaanee jeewal bisu samedi bi ëllëg sa di ajjuma ñu xëyee fa yand si kokki ñu yendoo kokki toog ba jant soñu to ba nit ñi reer ba julli gee guddig ñaar fukk xam ngeen ne weer wi dana xaw a guddee sàq tuuti weer wi sàq di weer wi sàq lañ jógee muy guddik altine ñu jógee ko